tuddee nañ ko Serigne Fallou Fall Fallou Fall Fallou Fall lañ ko tuddee muy Serigne Fallou Sëy Fallou Fall lañ ko tuddee Fallou Fall jërëjëf mbooloo mi yàlla na dund ba amee ndeyam ak baayam yàlla na ko yàlla def magum diine yàlla na ko yàlla def mag am lislaam mag mu am njariñ ñuy jéggalu ci tudd bu xaw a naaja bi rek waaye comme que tey dimanche la ngi koy sant yàlla di nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci ne ci turam ak santam di nuyu notable quartier bi di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay <coughs> di sant mbooloo mi nag ndax nag nit mën naa louer baas louer sees waaye nit ñi kenn mënu leen a louer di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad nga yegg may ko mu jàll Yacine madame Seye

سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد def leen ni ñu màggal سيدنا محمد way jàpp na bégal ala kullu fadle fadlallahu fadlawo bi ñëpp def ni ñu màggal سيدنا محمد moo gën ñi moo gën ñu woon moo gën ñi bëgg a ñëw Moustapha kenn du yonent Yàlla Muhammad bil Moustapha xayru xalqillaay bëgg dem aljana yaakaar dem aljana du Moustapha bilaay kenn du yonent bil Moustapha grin bi maana darajaam na ni amee Mamadou ku ànd ak yonent doomet def leen ni ñu وسيد الآخرين يا إمام المرسلين يا مكة يا لنجل يا لنجل محمد يا لنجل يا لنجل يا لنجل من يبلغني محمد رسول الله سيدنا محمد ويدنا يا ابن المصطفى fallu Muhammad mu gën ñii Seydina Muhammad mu gën ñee Seydina Muhammad ndey bari bari doole boo ko toñee léegi léegi daf lay baaru saa kenn mu yonent fallu Muhammad Seydina Muhammad yaa Rasulallahi Rasulallahi yaa Rasulallahi نجبرني نمتن سيدنا محمد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك كن يوم مكني بغى يوم مدوك أنك يرد بابر سيدنا محمد بن مصطفى خير خلق الله سبحان الله yaakaar demal dina ci Moussa sang sang yaa ngi moo gën nii moo gën a woo ko sopp def leen nii ñu màggal dal ay xayru xalqi ay kenn du yonent Yàlla Muhammad قرب ديارهم yaa leen gënal Muhammad yaa leen gënal yaa leen gën yaa leen gënal na ñëpp def ni ñu magal Muhammad Rasulullah wala wi salima bara ahmadi min xari jamaan wa sama xuda sama xari kamaal كرم بير مدها محمد خير بوران مختار إن الفقدين كأن جنب سيدنا محمد موي سيدنا المدينة سيد الآخرين وإمام المرسلين من يبدأ ñu magal dodo di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla wéral yàlla nañ gudd bay defal naam bis bi ndax nag ku ne xëyal sa doom ñeneen ñi ay couleur cheikh naa lañ du mel ni yéen ñi da nga xam ne couleur leen xam naa sa jotaay bi moom ba laata ñoo benn téléphone c'est privé ci na yàlla tàbbal ñu ñi ku mel ni kii waaw mu dégg rek ci teewaay mel ni sunu sunu dëgg Serigne Saliou ay ay nit ñoo xam ne ay lañ ci bi bi di sant bu baax ndax ni ko sëriñ bi waxee noonu rek la demee ci yàlla dogalee ngay dund am sëriñ waaw interview man la ñu interview tey jii dimanche la ñu bëri duñu am. sunu mbokku taalibe. Euh, di ñaan ñëpp ñu ñaanal ko. waaw ndax euh, ndax bis bi de waxuma pour am lu ko neex su defoon safaan du sama waay la jàmm ña wala ma se bi jaara